ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci seenum njàngle day baax lool dellu it roy ko moom sallallahu alayhi wa ci ay taxawaayam ci zuruf wala ci jamono yu mel nii ndax loolu rekk a taxoon suñ boroom yabal ko yabal ko ci nit ñi ngir mu ñëw jàngal nit ñi wan nit ñi nu ñu war a dunde seen diine nu ñu war a dunde seen àdduna ba tax na mën nañoo jël ci moom darus walla bind bu leer boo xam ne jàngale na ko dund na ko moom sallallahu alayhi wa bi nga xamee ni moom jóge na Màkka dem Madina gàddaay dem ba ma Madina mu def fa ab diir lu war a toll ci juróom-benni at namm lool Makka saxaaba yi mu àndaloon gàddaay ñoom it namm lool Makka yàlla mi dogal daldi dogal mu gént gis ni ma ngay dugg màkka moom ak saxaabaam yi mu xëy daldi nettali gént gi saxaaba yi ne leen dama gént nu dem màkka di umra watu jempu muy tekki ni kon umra nañu ba mat te ñuy dugg màkka ci dal lañ ko dugge ba nu fa nekkee ci dal lañ fa nekk amunu menn am tiit ci sunu biir nettali gént gi saxaaba yi diir bu gàtt mu daldi leen di yëgal ni leen acca leen waaj leen ñu dem màkka umra ji saxaaba yépp jot ni kon géntam googee mu géntoon ndekete moo dëggu tey ñu ànd jëm Makka ma nga ànd ak junniy saxaaba ak ñeenti téeméer ci li gën a wér ba muy génn jiital na juróom-ñaar fukki gëléem ndax bu demee loj ko fa màkka muy hadiyu li ñuy def fa màkka ba mu génnee ba yegg zul xulayfa moom lañuy wax ab abyaar ali léegi mu armal ànd ak ci saxaabam ñu nga jëm Makka ba ñu demee ba diir bu gàtt dese leen luy tolloog buñ ko doon lim ñaar fukki kilomètre wala lu mel noonu fekk yebal na ay ndaw yu ko jiitu ji wala am na ndaw yu ko dikkal ne ko waa Màkka génn nañu de ñoom ñëpp génn nañu nee nañu doo fi dugg yamuñ ci loolu waaye nee nañu gaw nañu la boo bëggoon a delluwaat Madina sax doo dellu ndax ña nga fa sallallahu alayhi wa sallama wàcc foofee ca bërëb bu ñuy wax Xudaybiya moom ak i saxaabaam daldi yebal omar ko demal yëglul ma fa màkka yëgal leen ni leen maa ngi ñëw omar ni ko man xam nañ ma am na nu ma demee ñoom kon yabalal usman ibnu affan radiallahu anhu mu yabal usman seydina usman dal di dem ba mu demee makka xëy dem ñu jàpp ni dana gontu si waaye fanaan gontu siwul ñëwul ci ëllëg sa ñu jàpp ni dana xëy si Ousmane xëy siwul benn fan ñaari fan ñetti fan ba ñeenti fan ñu siiwal ci mbooloo mi ni Ousmane rey nañ ko fa Makka ha mbir mi soppi nag ndawal yonent bi Seydina Osman ñu ñu yabal ko Màkka ñu rey ko fa déedéet loolu moom day daldi soppi taxawaay bi day daal soppi yéene yi day daal di sotti xew-xew bi yonent bi daal di taxaw saxaaba yëpp ñëw taxaw ñu jaayante ak moom saxaaba yi taxaw mu tàllal loxoom ku nekk teg ci loxoom ne ko du ma daw dugg Màkka rek waaye kenn du daw am nañu ne jaayante dee lañ ko wax dañ ko ni duñu du ñu daw wala boog dañuy dee ñaari riwaaya ñu jaayanteeg moom junniy nit ak ñeenti téeméer ku ne teg sa loxo ku ne teg loxoom ci sa loxo dana toqi sa loxo dafa mujj loxo bi dafa toqi ba Omar ibnul Xattaab moo ko ko taawul ñuy jaayante ci loolu jaayante ba yegg waaye bi ma màkk yégée ni Muhammad sallallahu alayhi wa soppi na xalaatam nee na day ñëw dal ci suñu kaw ñoom it ñu soppi yonent ba waxoon na ko nusirtu bi ru'bi masirata shahr man fu ma jóge jëm ci xare ñamay may xare su ma demee suñu boroom ba ma leen jubee lu toll ni weer yàlla dina dugal ci seen biir ak ragal danañu ragal danañu tiit ñu yebal ñoom waa Makka ku ñuy wax su Suhayl ibn Amr ni ko demal boo demee nga waxtaan ak moom déggoog moom lu ngeen déggoo rek ànd nañ ci noo la ko wax Suhayl li ñëw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daldi di soo waxtaan ba juboo ci ay kàddu yu dëgër yonent bi sallallahu alayhi wa ni ali ibn abi kaay nga bind ko bind leen déggoo gi li ngeen déggoo li liñ déggoo ñu tàmbali bind bañ demee jël kii yu ñu bind walla fa ñuy bind bismillahi rahmani rahim Suhayli ni ko dindil rahmaani xamuñu ko bu nu ko xamoon du nu taxaw fii li ñuy bind bindal bismika allahumma ñu dindi yonent bi ni dindil mu dindi mu bind bismika allahumma bind allah ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasul رسول الله أشهد أن لا لله الشرف bi mu ko bindloo moom sallallahu alayhi wa sallam ali mu bind bismillahi rahmaani rahim Suhayli ne ko dindil xamunu rahmaan bindal bismika allahumma ñu bind bismika allahumma daal di bind hada ma qaada muhammadun rasulullah Suhayli ibn Amr Suhayli ne ko dindil muhammadun rasulullahi xamuñu ko bu nu nangu woon ni yow yaay rasulullah lu nu taxaw fii di bindanteeg ak yow ak déggoo yonent bi ne aliin far ko aliin waat ni du ko far xalaatu la far muhammadu rasulullahi du ko far yonent bi ni ko won ma ko teg ci sama baaraam ma far ko seydina muhammad niñ ko xamee ummiyu la mun du jàng du liir mënta bind mooy an nabiyu al ummi alin won teg ci baaraamam mu far ko mu far rasulullahi ja ñu bind hada ma ahada alayhi muhammad ibni abd ibnu abd ibnu abdullah suhayl ibn amr lii la Muhammad ibn Abdullah dëppoo ak Suhayl daldi dini Muhammadu rasulullahi joojee ñu bindoon ñu ne ko ay ñu yeggale seeni bunuut sart yi ñu déggoo ñu tàmbali di ko bind bokk na ca ren moom du ngeen dugg màkka dangeen di dellu ba déwén Muhammad ni waaw bokk na ca fii ak fukki at dootuñu fi xeex diggante jullit yi ak yéefar yi xeex dootu fi am diirab fukki at Muhammad ni baax na bokk na ca képp koo xam ni bëgg naa farag yéen waa Xurays waa Màkka na farag yéen képp koo xam ni bëgg naa farag Muhammad sallallahu alayhi wa jullit yi na farag ñoom Muhammad ni waaw bokk na ca déggoo ga koo xam ni jóge na Madina ci jullit yi dellu si Màkka da ngeen ko fi bàyyi Muhammad ni waaw képp koo xam ni jóge na Màkka ñëw Madina te du ci ay ndigali ay kilifaam da lu nu koy delloosil Muhammad ni waaw saxaaba yi ni déet mukk loolu duñ ko nangu luy loolu sart yi na yem Muhammad ni leen baal Omar ibn Xattaab ca xadar ba ca tàggaay wa ñëw na ci yonent bi ni ko xanaa nun nekkuñu ci dëgg mu ne ko axakay xanaa ñoom nekkuñu ci ay neen mu ne ko axakay li ma naqbalu hasi daniya waaw doyadi gii nag lu tax nuy nangu doyadi gii ci sunu diine ji nag muhammad ni ko man maay rasulullah man mi la yàlla yónni te yàlla bàyyiwu ma de wal wat na ni dana ma wallu te li may defit defuma ko ci sama coobare moom yàlla moo ma koy digal wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuxa mu ne ko li may def sunu boroom moom mu ko digal te bàyyiwu ma mu dem ci Aboubacar wax ko li mu wax Muhammad li ma naqbalu hadihi daniya fii diinina doyee di giinu nangul ci sunu diini ji lu ko waral Aboubacar ni ko aljim xarza kii toppal ci gannaawam rek melal ci moom ni ak teg wala dëggal yu ñu takk ci ay fas mun ci aw fas mu ni ñàpp ci kaw mooy wax ñu nu arab la mooy toppal ndigalam rek bu ko moy lu mu la digal defal lu mu la tere bàyyi Omar dem toog aku tàngooram lu bari ci saxaaba yi loolu yëngal na leen waaye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangu sàtt yi ndax lu ko sunu boroom xamal te xamalu ko ñu ci des mu digal leen ne leen dem leen saxaaba yi hadiyu leen te leen te ñëw ñu dem saxaaba yi yëpp ñu ci bëri boog daal di am di diital yëf yi diis ci ñoom ba xamul lu muy def mu dem ca soxna umma salama àndoon naag moom ni ko halakal muslimun jullit yi alku nañu mu ni ko déedéet lu tax mu ni digal naa leen ñu bañ mu ni ko déedéet sart yi moo tar sart yi ñu sàccoo ak ñoom moo metti ci ñoom waaye ni ngay def taxallulal yow sangul watul defal sa hadiyu te war sa gëléem ni leen maa ngi dem ñépp dinañ la togg sallallahu alayhi wa sallam daal di jëfe ndigal loolu def noonu daal di ne saxaaba maa ngi dem ñëpp ñëpp jóg topp ko sallallahu alayhi wa dar soon am njàngan yi foofu mu am solo mooy yëpp waraa ak kulli azimin imraa li arab yi di wax kilifa koo gis soxnaa nga woon ca gannaawam ànd ak moom cim xel ni soxna si def ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ci ñoom xéewal gu baax goo xam ne bu jafe-jafe amee rek te nga miin leen mën a jëflante ak ñoom mën a diisoo ñoom na nga diisoo ñoom li ñu lay njëkk a wax solution lay doon defal suñ boroom a leen ko dimbalee ndax li taskunu ilayha dañuy dalal nit ñoom dañuy dalal kilifa dañuy dalal góor ba ku ci am koo xam ne man na ko mat na ko saaliha la mu'mina taqiya boo dee diisoog moom dangay am xulul da am solution ci li ngay diisoo ak moom mat nañu diisool loolu beneen njàngat la ci biir sallallahu alayhi wa sallam ànd naa ki saxaabaam dëpp na ma nga jëm Madina saxaaba yi ñu bari ci àndoon am na ñu tàmbali wax ci suuf waaw ñun ana umra gi ñu diggoon ñun dugg na Makka saxa ah ci ni ah ñun de wattu wunu jéem pa gisuñu sax Kaaba wax ji tàmbali ju sew ji ci suuf ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ wàcce ay aaya ci yoon wi la wàcce saar wi ñuy wax suuratul fatxi inna fataxnaa laka fatxan mubiinan li yaxfira laka allahu ma taqaddama min danbika wa ma taaxar ba mu dëppee di dellu madina ci la saar woo wàcc ci guddi gi yonent bi xëy na saxaaba yi biig de wàcce nañu ci man aaya ci benn riwaaya bi wàcce nañu ci man saar woo xam ni moo ma gënal àdduna ak li ci biiram daal di koy jàng inna fataxnaa laka fatxan ba saar wi jeex saar woowu di saar woo xam ni li ñuy wax as sakina muy ak dal ñëw na ci ñetti yoon baat boobu di jàngal jullit yi ñi yàlla ni nañuy ànd ak dal ndax dal gi rekk mooy li nga xam ni moo leen dimbali keroog am na fu ko suñ borom di wax ci biir maa leen fekk maa tax ba ñoom xeexu leen ak xeexu ñoo yéen man maa tax ba yéen xeexu leen ñoom ci gàttal keroog maa leen atte la ma ci jublu mooy wàcc ak dal ci yéen wàcc ak dal ci Muhammad sallallahu alayhi wa ndax jamono ju nekk ak dal di am solution di am ba mu demee ba saar way jeex aaye ba ca mujj mooy nekk ñaar fukkeelu aaya ak juróom-ñeent mooy muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allah ba aaya bi jeex da di ciy wax ay melokaan yoo xam ne Muhammad am na ko ak i saxaabaam melokaan yu dëggu yu wóor yu foor ci ñoom ndax bëgg waxtu woo xame ni ay jafe-jafe am na waxtu woo xame ni ay tar-tar am na te muy nunu neen ñun kese ñu jëfandikoo sunuy xel te bañ a topp suñu xol jëfandikoo ak dal te bañ jëfandikoo safaan ba onf taral du indi njariñ waxtu woo xam ni jamono yëngu na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jiite gi mu jiite woon saxaaba yi jiite jullit yi jox leen leçon yooyu wan na leen ni leen waxtu wu jamono yëngoo la cay xolool lay solution ba lay indi mooy ak dal ak dal di jiital am xel ak xam-xam te ay maga ngi fi yu yàlla may tànn leen dimbali leen ñu ñoo xam ne fu ñu la joxe xalaat soo ko toppee am ca ndam suñ boroom subhaanahu wa taala tagg na muhammad tagg ay saxaabaam joxe ci ñoom ay misaal yu bari bi ci njëkk rek bu ma teewlu woon bu ñu teewlu woon aaya bi misaal mi feeñ ay waxtu wi day xat yaakaar naa ni waaye bu ñu fi dajewaatee mooy doon mooy doon insha allah te mu bayaan bi ndax li ci bëgg a wax lépp ñu mën ko cee wax muy aaya bi di muhammadun rasulullah danaa ci jaar pii mu gaaw ba buñ ci dellu siwaatee wax ci la nga xam ni moo taxoon suñ borom subhanahu wa taala di ci joxe misaal waaye balay boobu ma yëgle leen ni leen aaya la boo xam ni ku ko mën a mokkal nga mokkal ko li ci nekk ci ay secret yi sunu boroom ak i mbóotam moom mi ko wàcce rekk a ko xam waaye bu ko kenn tay na ko ñëpp mokkal yomb na wàcce nañ ko nañ ko wàcce ci téléphone yi di ko déglu saa su ne walla nga def ko li ñuy wax transcription di ko déglu baat par baat di ko bind ba soo noppee man koo tiim jàngal ko sa bopp mokkal ko benn aaya la ci alxuraan walla ñaar ngoo xam ne mboolem arafi abajade yi mi ngi ci ci la suñ boroom tënk arafi abajade yépp kiy lakk arab lu mu neex neex kiy taalif lu mu mën a taalif alxuraan ji yépp araf yi ko composé takk ko mi ngi ci biir aaya boobu bokk na ci li ñuy baasiinal xale yi bu ñuy soog a tàmbali ci daara ja di leen ko teel jàngal ba ñu xam ko ndax secret yi ci nekk ca daara ja ca gone ya ñuy jàng alxuraan dëgg miim aadam dellu miim deel raa siin waaw lamara liif laam-laam ha saxiir ba mu jeex ci ñu koy arabal miim xaa miim daal raa siin waaw laam alif laam laam ha ba mu jeex ndax lan sunu borom da cee tënk arafi arab yépp arafi alxuraan yépp ba leneen lu nit def ci alxuraan wala lu nit xam-xam bu nit mën a am te jëfandikoo araf yooyu génnoo aaya bi muhammadun rasulullah aaya bi rekk ci la lépp nekk daara yi jàngale alxuraan dëgg dëgg daara joo dem boo fa fekkee gone fëgg ko ne ko muhammadun rasulullah mu ne la walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum taraahum rukaan sujjadan yabtaxuuna fa talil la ko ba mu jeex gone gu ndaw egg na ci sax bu buñ la ko baasi na lee ba pare boo amee jot xale bi am jot boo toogee kaamil bi araf ne nga ubbi ko teg ci sa baaraam mu tuddal la ko dana la mën a taril walla wàcceel kaamil bi araf par araf mu mel ni suñ borom subhaanahu wa taala dañuy jàngal ci foofu ni ñu gis nga diine jii cosaanam ba ca matam ba mu tàmbalee ba fam yam yem lépp mi ngi ci Muhammad mii may jàngale ci aaya bi ak i saxaabaam ñoom rekk la woon ni ma tënke lanku arab bi yépp yépp yëpp yëpp yëpp ci biir arafi aaya bi ñaar fukki araf yi ak juróom-ñett boo seetloo aaya bi mi ngi ci bu ko kenn tàyyi bu ko kenn tàyyi ku ko mokkalul woon na ko mokkal aw cax la boo ko mokkalee suñ borom moo la koy tekkil ab ëmb la bu suñu borom ëmb mokkal ko nga seet ba ren di déwél kaafi wala shaafiya kaafiya aay bi day faj day fekk jële naan la ci nekk lépp waaye muhammadun rasulullah nga jàng ko rek te jubli ci jàng alquran yonent bi nee na araf ne fukk la araf tudd fukk la ci ab yool fukk yoo xam ni suñu boroom a koy xayma ñaata ngay am boo jàngee aay bi yépp loolu mooy li li ci kaw liñ la mën a daal di leeral yonent bi sallallahu wax ko waaye li ci biir suñ borom subhaanahu wa taala rek moo ko xam muhammadun muhammad rasulullahi ndawal yàlla la lool leer na muhammadun rasulullah walladina maahu ñi nga xam ne àndoon nañ ak moom ashiddaau ala al kuffar ñu tar lañu ci yéefar yi waaye ruhamaau baynahum ñu am yërmande lañ ci seen biir taraahum foo leen fi gis wala taraahum da nga leen di gis saa su nekk rukkaan ñuy rukkoo sujjadan ñuy sujjóot lu bari raaki' mooy ko rukkoo saajid mooy ko sujjóot waaye rukkaan sujjadan mooy ku koy def lu bari lu bari lu bari suñ borom loola leen tagge yabtaxuuna dañuy yaakaar fadlan min allaahi ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala wala yërmandeem wa ridwaanan ak ngërëmam siimaahum seen màndarga yi fii wujuhihim seen xar kanam yi nga koy gis min afari sujjóot yi ci jeex jeexitalu sujjóot yooyee ñu doon sujjóot sujjóot yooyu ñu doon sujjóot moo tax boroom xam yi taxaw nañ ci wax nañ ci lu bari nee na ñu kuy sujjóotul suñu borom subhaanahu wa taala ku la gis xàmmee la xam ni kii ab jaamukatu yàlla la am na ñu ne ku fanaanee julli bu bët setee nga yendooy leer suñ borom du la bàyyi taraahum siimaahum seen màndarga yi fii wujuuhim seen xar kanam yi la waaye bul ba bi ci boroom xam-xam yi taxaw lu bari mooy ëllëg yowmal xiyaam bu ñu leen gisee bu ñu la gisee sa kanam gi day leer nañ ndax sujjóot yooyee nga doon sujjóot ci àdduna daalika yii ma la wax mathaluhum fi tawraat mooy seen misaal mi yàlla joxe woon ca téere ba mu wàcce woon ci yonent yàlla Muusa alayhi salaam muy tawraat mu ne waxoon na ko fa ni leen am na xeet wuy ñëw seen gannaaw mu xam Muhammad tey doon seen njiit nii lañuy mel de wa masaluhum fil injil nag téere ba ca injil téereb injil muy ba yàlla wàcc woon ci nit yàlla Isa misaal ma fa yàlla joxe woon ne na ka zar'in xeet la woo xam ne dañuy mel ni gàncax buy tàmbali day néew doole lool waaye di màgg di màgg di màgg di màgg di màgg ba jariñ ka zarain ni ki gàncax boo xam ni raja génne na shatahu ay caram ay pàqam ya muy àndal ca suuf dugub boo ko sax joo ko jiyee wolli ba mu baax day toj fu ne ab càpp génne fa mu mel nii ba génne ay jitax yu bari shatahu fa azarahu set yooyee ñooy dëgëral cosaan la dimbali ko fastara lasa ñu dijjal ko fastawa ala suuqi mu dem ba ca kaw dooni gi tax yemoo maase gi yoo xam ne yon jiba zorrar day yëm baykat yëpp experts yi ñu gën a xarala ci mbay bu ñu gisee gàncax googu da leen di yéem gàncax gi nu mel nii lu ko war mel nii da leen di yéem suñ borom nee na ñoom lay yéem waaye moom mi ko def yéemu leen ndax lan li yaxiisa bihimul kuffaar da koo def njër yéefar yi seen xol yi mu leen ciy xëllantoo merloo ci yéefar yi yéefar yi nga xam ni bëgguñoo gis jullit yi ñu ànd bëgguñu leen gis ñu ñu déggoo bëgguñu leen gis ñu ñu màgg ba yàlla ne maa def ñoom déggoo googu ñu déggoo ci seen biir ànd di dëgërante ndax seen xol yi di dakk waada dig na allahu yàlla alladina amanu ñi nga xam ne gëm nañu muy borom misaal mu njëkk ñi wa amilu saalihaat yi ñu jëf jëf ju rafet mm, minhum ñoom ñëpp ñoom ñëpp min hum du ñenn ci ñoom ñoom ñëpp min jinsiyal jins li bayaan wala li bayaanil jins maxfiratan la leen di njëggal nee na ñoom ñëpp dana leen jéggal wa ajran aziman ak pay gu bari lool pay gu bari la leen dig ci ah seen taxawaay boobee boo ko jàngatee dëgg ñaari misaal yi xat na lool waxtu wi xat na lool waaye njàng la mu yaatu mu ci boroom xam-xam yi wax waaye dafa mel ni da ngay ne ñaari misaal la ñaari melokaan rek la bu ci njëkk bi ca tawraat la nekk ñaari bi ci linjiil la nekk ñu ni ñaari melokaan yépp ci ñoom saxaaba yi la ko yàlla misaal ne leen ñoom Muhammad ak i saxaabaam ñooy mel nii bu ñu dikkee seet loolu misaal mu njëkk mi ba mu fi del siwaatee incha allah eggale ko nee na waxtu wi yegg si na yàlla na yàlla defal tawfiix ak taysiir jërë ngeen jëf allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim